asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci revue de presse bi waaye nag laataa loolee kuy ngeen ci page bi te abonné ko dañu lay ñaan nga abonné te bës bi ngir kat loolee dina waral bépp vidéo bu ñu dugal yaay doon ki ciy njëkk jot ngeen di commenté wax di aimé loolee tamit dina dooleel seen bi bu leen xeeb abonné bi ngir kat loolee dina doon loo xamante ci ni dinañu jàppale waaye nag boo abonné ba pare da ngay bës cloche de notification bi nekk ci suuf boo ko laalee mu génn ñetti cloche nga bi ci kaw lan moo koy waral day tax bépp vidéo bu ñu dugal kenn du la ko envoyé mooy wàcc ci sa téléphone nga mën a dem abonné ji te seetaan vidéo yi kon nag revue de presse bi fii la ci suñu réew la koy dooree stade di yéen moom nag ñëw na ci mbirum suñu gaynde yi nag nañu leen ñaanal rawatina ki nga xamante ci ne mooy dem Portugal bi lii di Cristiano Ronaldo démb nag nag yóbbu nañu ko fa waaye nag nee nañu ba xam lan moo ko fa yóbbu la ñu ba xam Cristiano Ronaldo dafa jug pour dëpp dem dañuy wutal nag groupe Futurs Médias rek wax du yéen kaay li koy doore moom nag dafa ñëw ci ASC joueur Sénégal bii la di ADGF ku ko xam ne nag ndaaraan la ci équipe nationale du Sénégal xam naa samay commentaire xam kuy ADGF moom nag ëpp ci match Sénégal yi moo daa dóor ay coup waaye nag moom dafa nekk joueur bu fiable kon nag maa ngi leen di laaj ci commentaire yi ngir kii la di ADGF nga xamante ci ne nag fiable na lool ngir ADGF man na koo woo wala it Aliou Cissé ñi mu yor ni baax na wala daal loolee xibaar moom maa ngi leen koy posé ci commentaire yi moom journal bi dëggal na ki nga xamante ci moom moo di Formose Mendy moom mi nag ab défenseur la moom it dañuy laaj ba xam Aliou Cissé na ko wala déet waaye nag lu ci mos a rësën yi da ngeen ko am journal bi dëggal na ne mbirum kili di doomu Portugal bi di Cristiano Ronaldo defaat na retour foofee ci biir Angleterre bi li de Manchester di ñoo xamul lan moo ko fa yóbbu ba dafa dem ngir régler ay mbiram ngir mën faa jógee moom kili di Cristiano Ronaldo dañuy jóge nag groupe Futurs Médias muy rek wax du dal di wutali nag réew mi quotidien sport moom moom nag ASC Jeux Sénégal bi la di Mbaye Niang la fësal ci moom ki leen ak di Mbaye Niang kon nag nekk ASC sur Sénégal boo xamante ci nii xàmmee nañu ko kat ba ñuy dem fële ca coupe du monde bi nga xamante ci nii moom moo ko organisé woon ñun équipe nationale ñu àndoon Mbaye Niang mii kat na ca ndax kat am na match boo xamante lu toll ci ñaari bal la dugal moom moom ki leen di Mbaye Niang waaye nag li gën a te wër moo di it boobee xibaar it sampal naa leen ko yéen it comme ab laaj ci commentaire yi ko ca coupe du monde bay amee ca Qatar wala it bëggoo leen ko ngir kat ndaanaan la te it na dugal ay biti moom nag dafa mel ni ñàkk am club boo xamante ci ni àddina bi dañuy dégg turam ca kaw loolee nag moo waral mën na am sunu gaynde gile di El Tactico di Aliou xam ne te ci ne ñun bëgg ba tey nag ñu ngi ciy dégg ay rumeur ci diggante moom doomu

ay làmb waaye nag moom mi nga mujjee bëri ak kili di Franc bu parcelle Franc parcelle nag moo ko dal di daan kon nag waa parcelle ñoom ñu ngay wëy nag di daal di noggatu ñi la di waxee kon nag parcelle ñoom wëy nañu di noggatu Pikine moom Franc nag ñu ngi koy proposé ay làmb waaye nag nee na li ñu koy wax moo tuuti wala it promoteur bu ko ci wax daal déggoo ak moom ba pare génn ci média bi di wax dañuy wutale nag Espagne wàcc moom ak kii di Mundo Deportivo yëkkati na fa nag ay kàddu nekkoon naa ci club bu mag ci championnat bu mag muy Angleterre championnat bu Angleterre rawatina nag club bi la di Leeds United eh, foofa it bind naa fa taarix muy dugal naa fa bi yu bëri ku xam Raphinha nag xam ne daanaan la waaye nag moom journal bi dëggal na ne doomu France bi nga xamante ni moo di waaye nag ban contrat bi di jeex moom doomu France bi lee di Sulkunde nag Barcelone ba mu ci nekkee ak Sulkunde te nag Chelsea ak Sulkunde la woon ak Chelsea Seville rawatina Barcelone ak Seville Barcelone ak Sulkunde ñi la di waa mujjee dal di daan waa Chelsea bu mu baaxul Barcelone dañ leen nax yóbbu leen offre bu gën a kawe ba Chelsea yóbbu loolee nag moo waral Barcelone gën a desoon ci mbir yi moom kese nekkoon ci loolee nag la ñu duñtu ba lépp dal di yem muy sport moom nag da koo dëggal moom dañ ne te ko xam sport xam ne ca Barcelone ne musta joxe xibaar bu lënt moom nag moo ne sur Koundé 2027 kon nag mën nañu am jàpp ne léeg-léeg di mbirum sur Koundé moom nekkatul loo xamante ne ay xibaar yu ñu muy kii di Marcos Alonso ak kii di Azpilicueta ñoom ñaar moom am nañu accord ak Barcelone waaye bu dee Sulkune moom accord total muy ñoom ñaari club yi ak gone gi ak agent ak waa Barcelone ak agent gone gi déggoo nañu ci kàddu lépp yemm na gone gi wutali Barcelone def phase visite médicale yi bu ñu xoolee yaram ba lépp yemm ñu daldi ko signé contrat bu ba atum démb nag match amoon na mu waroon dox ci diggante Barcelone ak ñële di waa Juventus match boobee nag Kilidi Rafinha fës na ci lool ak Robert Lewandowski waaye nag ndam match boobee ndam dimul ndam dikkul maanaam ku ne dugal nga sa moroom ñaari bal Barcelone ku dugal sa ñaari bale Ousmane Dembélé nag moo dal di dugal ñaari bale yëpp démb nag fës na loolu ca max ba ma nga wane boppam bu baax a baax dañuy wutali nag Madrid fekk fa Marca yéen kaay dafa ñëw nag ci mbirum clé di Cristiano Ronaldo comme ni ma leen ko junjee ci taskatu xabaar yi rek moom nag loolee la dëggal nee na Cristiano Ronaldo la retour de Angleterre sur la Manchester United waaye nag li jàmmal àddina bépp moo nekkat dañoo xamul lan la fay wuti ku xam Cristiano Ronaldo la kese la na faa defaat régler ay mbiram dal dafay jóge comme Robert Lewandowski ni mu ko defee woon wàcc Allemagne ca ba yax ak kenn waaye moom Cristiano Ronaldo mooy ànd na nag ak ay xaritam wutali Angleterre wàcc ci Manchester United waaye nag tey jii bu dee gisuñ ko ci Angleterre rek danañu leen ko dégtal moom journal bi ñëw na ci Antonio Rudiger ba mu ñëwee ca Real Madrid moom nag championnat Antonio Rudiger la mu indaale ci Real Madrid nekk na lu diis maa ngi koy laaj ci commentaire yi ngir moom kat lii bu ko naree indi ci championnat Espagne moom nag comme ni ma leen ko junjee rek noonu la ñëwee ci mbirum kii

Ousmane Dembélé nag fës na loolu tamit sama ngir dugal na ay ñaari bi yoo xamante ne ñaari bi yu jafe la muy dafa dugg ci biir joueurs yi duut leen ñoom ñëpp dóor balee mu dugg te ñaari point bi rafet rafet la moom ki nga xamante ne mooy doomu France bi di Ousmane Dembélé kon nag Xavi Hernandez li tax mu wax Juan Laporta mu yokk contrat biir di am na nag fa des waaye ku ca mel ne Morata kookee nag sama xarit la lool rawatina seen défensif bu ASC bi la di Chiellini waaye nag li gën a wéetewoon moo ne nag li ma yëkkati lépp ma yëkkati moom moom José Mourinho it Angel Di Maria Paul Pogba kon nag si fantis gi daal déwén moom incha allah bu dee saison bi commencé waane moo xam ligue des champions bi la moo xam championnat Italie bi kenn du leen ci gën a wane seen bopp li ko waral moo di kat mercato bu baax a baax la ñu def te nag ku xam Barcelone xam ne jamono ci may wax yéen nag série yi mu am daanaka équipe bu mu rek bu la dóorut kon nag équipe bu jàmbaare nga te nag ñi li di Barcelone démb mayuñ dara waa Barcelone kon nag ñi nga xamante ci ne ñoom ñoo di waa Tutto Sport ñoo leen jox yi lay xibaar ñu nangoo ko ci ki nga xamante ci ni moom moo di italien dañuy wutale nag fii ñuy ndar képp xibaar yi a digg ñu jox ko numéro 21 nga xamante ci ni ñoo ŋànk football bu jëm ci wàllum AS Roma moom ki ne nag di Paolo Dybala kontaan na dool ci ñëw foofee ci biir AS Roma dafa génn këram dugg këram muy génn si vandisi dugg biir Italie waaye daanaka du dox la sori rek dal di jot ay xaritam fii nag la ñuy nar keppee xibaar yi di ñaan ko abonégul nga dal di abonné te bés kolos de notification bi loolee nag dina waral bépp vidéo bu ñu dugal yaay doon ki ciy njëkk jot bu leen fàttee ngeen